كنا ذلك واي لي في نيك نا خيف غوغو مو دان خيف با تخ مو جيل خير ديكو دغرلو ما خات كان من يسمي دي نياك مانا ام لو مو دوند تخول وون موي ديف نونو دا دون خيفال بوبام غير يالا مانا ليك ام لو ليك بايي كوفي لولو مو نيمي خيف نيمي خيف غو خامني وور nga وور ليك غيسو ليك ني ديو دا نيمي خيف نيمي وون خيف دا فا نياك بخي وايي غيس ليك ولا غيس لو مانا سوبي لغي waaw sëñ Habib si borom tampon bi lañ koy wax mooy caatu Seydul Xaaju Maalik Jaksaaw dañ fay liggéey ci ma ko nettali moo ko fekk nee dañoo nekk Jaksaaw di liggéey naaj bi tàng jër kenn amul foo naane ñu toog ba yàgg rek mais dafa am benn jet d'eau pël ndox mi di ndox mi di bax ñépp jóg yenn taalibe yi jóg ñi nga xamne ne seen defaru matagul won ñu nan ah kendo du malik commencé bak alaaji malik rek alaaji malik rek mam habib si jël chaise ñu lalal ko sijaada mu ñew tok tim ndox mi tey kurusam di wax di zikar di zikar ba ndox mi dem kenn gisatu ko mu wëlbatiku ni mbokk yi yéen xameegu leen xàmmeegu leen pexem sheytane ak mayu yalla bokale gi xew la seytaane doon wut si sama kër bàyyi moo tax mu mel ni ku fi indi wan leen ndox ngeen yaakaar ne ndox la nekk def pexem seytaane la sañ Habib si delloowaat loola moom la magam ji wax ni iblisu martasamat minhul makaidu fu ne jaar na fa waaye bu duggee kër Seydul Xaaj Maalik amul fu mu aw mu ne yonent bi maam Maodo mu ne ànd ak xiif googu yépp nekkul woon dafa amul ñàkk waralu ko de ñàkk mën a amit waralu ko da koo doon def taabudan lillahi wa akkada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala alisami akkada التأكيد مع التقوية زهده الزهد ما wa qillatu وقلة الرغبة فيه وقال شيخنا التيجاني رضي الله taala anhu laysa zahidu الذي يذهب في الدنيا wa yarhabu fi l axirati Cheikh Tidiane nee na boo gisee ku dëddu àdduna nekkul ki bàyyi alalu àdduna uniquement pour alaxira déedéet waaw nit ñi boo déggee ñu daa dëddu àdduna rek pour ñoom mooy boo bàyyee alalu àdduna pour jublu ci alalu alaxira Cheikh Tidiane nee na nekkul kooku mooy dëddu xaqiqatan ñu ni ko waaw kan moo dëddu kon mu ni innama zahidu alladi yazhadu fi daarayni waaw àdduna mindeef la alaxira mindeef la boo wanee mindeef ginnaaw jublu mindeef ci mindeef nga jóge jëm ci mindeef laa tarxal min kawnin ila kawnin bal irtaxil ilal mukawwin boo dee boo dee boo dee jublu bul rañaane ci nekkiteef jëm ci nekkiteef bu rañaane ci créature jëm ci créature waaye da ngay rañaan ci créature jëm ci créateur da ngay joggé ci minde fi dem ci aji bind ji moy az-zahid wala cheikh na tijaani wax waaw bari na nak ñu wax da dëddu aduna ay pexé ma jeex waaye dëddul aduna waaw bari na ku ñu wax da dëddu aduna foko fekk mu sol ay sagar di kocc koccal da amul pexé waye mo gëna bëgg ñëpp aduna waaw waaye Cheikh Tidiane daal li mu jàngale mooy zuhdu dëddu àdduna dëgg mooy alaaxira ak àdduna àjjana lépp nga won ko ginnaaw jublu jëmm yàlla ji nitu yàlla yi bokk ñoog ñun de ñun bu ñuy jaamu yàlla li wax ji bëri bari nañ dugg àjjana nañu ñu ci safara rek ñoom nag seen yoon nekkul ci àjjana ak safara li leen intéressé mooy jëmmi yàlla suñu borom subhanahu wa الضرورة من شدة الحاجة إن الضرورة لا تعدو على الحسمين على العسمين ومن كلامه حظ مداف أي على ذوي العصم وهم الأنبياء عليهم السلام من على العصمة مطلقا موي مطلق الحفظ وصلها حفظ الله لهم من الذنب مع استحالة وقوعه xam nga dafa am lu al isma mooy wattuk yàlla mooy wattu waaye bu ñu ko laajee ci istilaahiyan mooy wattu yàlla yàllay wattu jaam bi min adhanbi ci bàkkaar ma astihaalati wuquihi maanaam ki nga xam ni moom mooy moom mooy moom yonent bi mooy yonent yi yàlla daf leen a musal ci bàkkaar ànd ak jombu bàkkaar di aju ci ñoom العصمة أه، وللأولياء الحفظ والحفظ هو حفظ الله لهم من الذنب ما جاوز وقوعه من بنك الحفظ كي ولي يليدم موي موسل قلن يالا موسل كي باكار اندك منا دفق باكار بوكولك بوكولك يننت يننت موم def bakkar day wëlbeutiku jomb ci mom waaye bokkul ak wëlli moom yàlla da koy musal ci bàkkaar waaye def bàkkaar mën na ko gaar mu ne wa kayfa tadoo ila dunya daruratu man lawlaahu lam taxruju dunya min al ne man de maa ngi laaj man imaamul Busiri wa kayfa kaaw teef naka tadoo ngay woowe ila dunya jëm ci àdduna gi daruratu man istifham inkaariya la bi maanaa nafyu ay laa tadoo bul woo mukk bul woo mukk mukk mukk jëmee ci àdduna aajo koo xamante ni bii bu dul woon ak moom àdduna du génn ci ñàkk ki nga xam ne ci barkeem la yàlla amal àdduna wax dëgg yàlla bu wëlbati ko toppaat ci ginnaaw àdduna nag du ko jar Allah lam tahruj dunya min al adami xolal ba mu déparé ba légui mo ngi dogo tudd ki ko tax a te ki ko tax kenn la moy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wo man kasuran mahamiduhu sayyiduna muhammad mi sayyidul kawnayni Moy sangu nek tefi mo xam nit la mo xam jinn la Manam, ay ahli al ini, wa summiya ini li sudurihima min kun fayakun. yakun mu wa al ins wal jin wa innama summiya sakala li thiqali li lihima al arda aw li siqalihima bidhunub mun ni tax nit ak jinne ñu tudde leen saqalayni ñaari ndiji bop yi moy bëri gi ñu dafa mel dañu mujj di diisal suuf ñu ne déedéet ñu ne asaka lay mooy seen bàkkaar yu bari moo mujj dem ba diisal suuf kooku nag kii seen sang mooy Seydina Muhammad nabi yu naa suñu sang bi al amiru mu mel dafa am lu ñuy wax idaafatu tashrifiya mooy nabi yu naa suñu sang ñun xam nga ndeysaan yenn saa nga gis mbir nga ni man sama sang liñ ci jublu mooy da ngay kontaan di puukaréewoo ki nga xam ne mooy sa sang te sa sang kan la mooy ki jara puukaréew mooy seydina muhammad muy nabiyuna suñu sang suñu yonent bi al amiru mooy aji digle an naahi mooy aji tere al amiru bil maaruf wan naahi anil munkar fala ahadun min al maxluqaati abarra ay asdaq fi qawli la minhu ay ida amara aw naha mu ni amul kenn ku gën a dëgg ku gën a baax ci yonent bi ci waxam waaw wala mu ni déet kooku nag kan la huwa alxabibu huwa moom sang bii di seyduna muhammad alxabibu mooy soppe ba almahbubu mooy ku ñu sopp ñun ñëpp tamit di alladi ka nga xamante ni turjaa def na yaakaar شفاعته شفاعته اكتنوم لكل هول من الاهوال مقتحم ترجى والرجاء كما قال به ابن عطاء الله السكندري لان هو ما قارنه عمل والا فامنيه من بودي الرجاء moo tax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu ni inna raja la fi waadin kada tamaun del tegtaloo dara doog a yaakaar dajug alal waaw mu ne ar raja dafay nekk baadal amal wa illa fa umniya mu ne bu nekkee yaakaar dañ koy tudd ar u mooy ginnaaw bi nga defee mooy baykat bi nawet jot mu dem ji gerteem di yaakaar am nawet bu baax kooku mooy arraaj yi الامنيه موي كيغا خامني بي موي تاو ميغي توك سي بير نيغم دي باغا توي توك سي بير نيغم دي خالات ام غيرتي لول موي الامنيه موم لا ترجا ديف نا ياكار شفاعه تنم تنم رسول الله لكل هول من الاهوال مقتحم mu ne nag ngëm yàlla bu doon janaaw bu doon picc buy naaw ñaari laaf la am جناح يخاف والرجاء ترنح ومالك لولا مولانا الحاج مالك جانقلة والإيمان له جناحان كالطائر والجناح الأول هو الخوف هو توجع القلب من من خشية الوعيد ragal xawfu mooy mettitu xol gi nekk ci yow ngir ragal tëkku yàlla tukku doomu aadama mu ni beneen laaf bi mooy lan huwa raja fillaahi subhanahu wa taala بأن يغفر له ولا يعذبه ولا يتوقع فيه الأمان منينك الرجاء موي ياكار ام بن بن بن بن بن بن واي بو نيو سيدنا محمد مني الله خير فا تخاو ñu xool ay jëfam yépp dara baaxu ci yàlla ne nañu ko dugal safara borom téere bi mu ni bi yàlla waxee waa ji nañu ko dugal safara waa ji demul dafa taxaw ku bëgg a gis loolu mën nga dem ci alfawdu wan najaat fi hijrati ilallah bi mu ko waxee yàlla ni ko waaw doo dem dugg safara jàpp leen ko dugal ko mu ni yàlla man li ma doon dégg ci yow ak li nga ma nar a def bokkul de mu ni ko loo doon dégg ci man mune ko dama deggone yow yalla do tass yakar lima dan moy yalla yakar la kep kep kep ak yakar sa yermane moma ci dugalon yalla ni man mi ken du ñew ci man sa yakar di tas jappale ko ngeen dugal ko aljanna ah kon inna raja ala fi wadin yalla ñal defal tawfiq mune fa idha tamahadha ar-raja'u wahdahu bila khawfin kana amnan wal amnu min allahi taala aynul kufri mu ni bu nekkee nag da ngaa ragal yàlla da nga da ngaa yaakaar yàlla te ragaloo yàlla loolu mooy al amnu min makra min makrillaahi te laa yamanu makrallaahi illa al qawmul xaasiruun moo tax taalibe tijaan bi itam na bàyyi xel bu baax foofu ndax ndax ndax li ñu dig taalibe cheikh bi muy ay damaan yu ko maamam warlul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy bëri bëri bëri bëri cheikh na tijaan dafa wax ni maalam yamanu makrallaahi ah te al amnu min makrillaahi mooy ragal mooy mooy mooy yaakaar gu àndul ak ragal wa ida tamahada alxawfu waxdahu kaana ya'san min allahi azza wa jalla wal ya'su min allahi azza wa jalla aynul kufri itam maanaam naagu yitam ci yërmaande yàlla ak naagu ci bañ a topp yàlla te bi nga toppul yàlla ragaluloo safit tiitul loolu mooy ki nga xamante ni bi wóolu na ndogalum yàlla te yàlla moom machiatuhu kenn du ko xëccoog moom muy turja shafaatuhu mu ne ashafaatu hiya talabul xayri lil xayri inda al hawli ashafaatu mu ne mooy wut yiw ci jamonoy njàqare ngay dox ci diggante nit ak njàqare loolu pour génne ko ci njàqare loolu shafaatuhu fi fasl mu ne nag dafa bëri ay étape tiinu gi Seydina Muhammad ramu xeet wi am na ci état boo xam ne day fekk nit ñi taxaw te lu doy waar moo doomu aadama keroog dina ñaq ba ñaq ba muy ñaq di génn ci benn jëmmu doomu aadama boo dajale woon giléem nga jox ko giléem gi dina naan naana naana naan ba màndi te tax ñàq yi jeex ah ñu julli insha allah ah, jëlal te nga jël bi ci suuf est-ce que بسم الله الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم bu ñu àggalee suñ baqiyaat saalihin ñu jàng fatiha salaatul fatihi kul huwa allahu ak benn juróom-ñaari inaa anzalnaahu ñu tëje ko benn feru salaatul fatihi def ko addiya sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu taala ak njabootam mam Seydi Hadji Malick Si radiyallahu taala ak njabootam ñaana ko kilifay islam bi ñaana ko kilifay tarixa bi ñaana koy daawi jullit yëpp ak seen njaboot yal na yàlla yokk seen leer yeesal seen yërmande taas ñu seen barke bu ñu àggalee ñu jàng fatiha salaatul fatih ayatul kursi yu lixlaas falaxeeg naas tëje ko benn peru salaatul fatih def ko addiye seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam jaamoo ko yàlla nee na ko sëñ babacar si mansour yal na yàlla oyofal yan bi yal na yàlla guddal fanam te dolli ko wér defal ko ko defal ko njaboot seydi haaji malik defal ko bépp julit ak seen njaboot ci barke seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam bu ñu noppee rek ku nekk fi nga toog nga wëlbatiku te bañ a ñëw ci kanam ku nekk da ngay wëlbatiku rek boo wëlbatikoo nga dellu gi ginnaaw tuuti bu ko defee place bi yaatu ku wëlbatiku rek da nga ciy boole dellu ginnaaw tuuti bu ko defee place bi gën a yaatu macha allah. Allah ñaan ñu wàññi wax ji tuuti ci jàkk ji ñu wàññi wax ji ci jàkk ji tuuti ñu wax ñu wax ji ci jàkk ji tuuti

ñu bokk jàng ñun ñëpp fatiha ah mbokk yi ngeen baal ñu yéen ñëpp góor gi Alxaj Tafsir Saaxo bi gannaaw bi mu nuyoo sant yàlla julli ci yent yàlla muhammad ci ndigalu seigne babakar Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour ñom ñaar nag ci sen ndigalu kilifa al khalifa Seydi Aboubacar ñun ñep ñu bok jàng fatiha ak ben peru salat al fatiha def ko hadi yonent bi ñaan yàlla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

أشد من شغب أحشاء وطوى تحت الحجارة كاشا مطرف الأدم مولاي صل وصلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم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 خير الخلق كلهم نبينا لا أحد أبر في قولنا منه ولا خير للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا صل وسلم دائما أبدا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 وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البر او رشقا من الديام المولى يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل بي واقفون بهم أذن الدين من نقطة العلم أو من سكرة العظام أنا مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم الله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 دعما لأتون صار في نبيهم واحكم بما شئت ما دعن فيه واعتكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم واصب إلى ذاته شم من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظامي والله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله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 لونا صبد قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يرعى دارس الرمام يا مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم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 أعيا الورى فممعناه وليس يرى للقرب والبعد غير منفعم أنا الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم لا الطار للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمامي يا مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوما يا من تسألوا عنه بالعلوم الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كل مبلع العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كله مبلع العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله فمبلغ العلم أنه بشر وأنه غير خلق الله كل رواتبها يظهرن أنوارا للناس في الله يصلي وسلم دائما أبدا الخلق نبي زان وخلق بالحسن مشتملين بالبيت متسمين والبدر في شرف والبحر في كرم ودار بإمام لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير للخلق كلهم كأنه وقرد من جلالتي في عسكر حين تلقاه وفي عشمه مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم جهنم اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطقين منه ومبتسمين مولاي صل وسلم يا طيب يعديل تربا ضم أعظم طوبى لمنتشقين منه وملتئمين الله يصلي وسلم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 يا ربي صلي على المختار المضار والأنبياء وجميع الروح ما ذكروا مولاي صلي وسلم صلي رب على لهدي وشيعتي وصحبي من لطاي الدين قد نشر وجاد معه في الله واجتاد وهاجروا ولا أووا وقد نصر وبيانوا الفرض والمصنون واعتصم لله واعتصم بالله فانتصر أزكى صلاة ما وأشرقا يعطر الكون يا نجري العطير معبوقة بغبيق مسك زاكية من طيب أرد رضوان ينتشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على عد العصا والثرى والرمل يتبعها نجم السماوات الأرض والمدى وعد وزني مساقي للجبال يلي قطر جميع الماء والمطر وعد ما عاوت الأشجار من ورق وكل عرق غدا يطلى ويسقى والوحش والطير والأسماك ما نامت يليم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع العبوب كذا والشعر والصوف والأرياج والوبر مولاي صلي وسلم هم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما أعطى بالعلم المحيط وما جرى بالقلم المأمور والقدر مولاي صل وسلم نعمائك اللاتي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ أوتنوا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 عين يطربون بها أهل السماوات والأرض أو يذروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي السماوات والأرض ما جبل والفرش والعرش والكرسي وما آخره موجودا وأوجادا دوم صلاة دعوى من ليس تنعك مولاي صل وسلم دائما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 من دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لا أمد يقضى فيعتبر مولاي صلي وسلم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 أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عاد ربي وداعبهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك بالله هالبادر القيدين قلوا وإن تزوروا مولاي صلي وسلم دائما يا ربي واغفر لي قاريا وصانيا يا ربي واغفر لي قاريا وناظميا يا ربي واغفر لي قاريا وعافيا والمسلمين جميعا أينما أدروا مولاي وديراتنا وكلنا سيدي للعاب مفتقر مولاي صل وسلم دائما وقد آتينا ذنوبا لا إداد لها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 وقد أتى خادعا والقلب منكسر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من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 أصاب العذر مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك باع ليس ينعسير أمين مولاي يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم واقض ديون الاخلاق ضيقه وفرج الدرب عنا أنت مقتدر مولاي صل وسلم واقض ديون الله الاخلاق ضيقه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

لطفا جميلا بيل أهوال تنعى بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدعي الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النار وما حتى جاء القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفتي من قام من بعدي للدين ينتصر وعن أبي أفصي فاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكامه مروق

هب لعثمان ذي النورين من كملت له المعاصي بالدارين والغبرون قد جانا سعد سعيد بن عوف طلعات وأبو عبيدات وزبير سالب بن غورة وامزات وكذال عباد سيد ونجل العبر من زالت بالغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة بعد ليل الدياج أو بل الساعة ثم ارضى عن شيخنا تجان قدوات شريزه المشايخ لا طوبى لنا الظفر مولاي صل وسلم دائما ابدا ثم ارضى عن شيخنا تجان قد شريف شيخ المشايخ يا طوبى لنا الثبرات وارضى عن شيخنا تجان قدواني شيخ المشايخ يا طوبى لنا الزبرون وعبده نجل عثمان الذي انتشرت بطريقته يا عبد الوزراء يا ربي صل وسلم أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم ربي صلي وسلم دائما أبدا على الناصر وآل البيت كلهم الحبيب صل وسلم دائما ابدا على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا أنا المختار بالقدم وصلي يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم

أقبلنا بير صلاة الفاتح إلى فكو هدي النبي صلى الله عليه وسلم نيان يلا يلا يلا ما ينو أقل جم في درجة ينتهي محمد صلى الله عليه وسلم Ah, Seydi Bakar Moulay Abdou Aziz ne ñu ngi nuyu ñëpp ci tur Seydi Bakar di ziyaara ñëpp ci turam di ziyaara itam ñëpp ci turam di ñaan yàlla di ñaan yàlla lii ñu lii ñu ne yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla nañ ko yàlla nangul lu ci njuumte yàlla nañu jéggal lu ciy njuumte yàlla nañu ñu ñu àggale koog jàmm yàlla may ñu ñu àggale koog jàmm nag xalifa bi tam yéeneem xalifa bi tam yéeneem ci kër maamam te maamam mooy diine ji rek yàlla na ko ci yàlla defal li mu bëgg yàlla na ko ci yàlla defal li mu bëgg sunu wayjur wii moom góor gi alxaaj tafsir saaxo ñaanal na ko sànq li nga fi fekk yàlla na nga ko àggale te sumb say sumb te sumb nag say sumb yàlla may la nga àggale ko mën na ko sañ na ko te kenn du ko wax lu tax yàlla na ko yàlla def tey nag sunu mbokk papa Yuusufa Jóob mooy waxtaan ak ñun waaye nag mbokk yi Seydi Bakar ne ñu ñaan leen rekk ñun ñëpp ñu toog te bokk déglu na ñëpp toog ñun ñëppit ñu bokk ci jëlendoo ci njëriñ déglu nag ñaari sens la déglu ci ñàkk pexe. déglu ci ñàkk pexe. ak déglu pour jëriñe. ak déglu nag pour jëriñe. yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal. wa ida quri'a al qur'an. fastami'u wa ansitu. la'allakum turhamun nañu àndandoo bokk déglu. jataay bi ne ndax kat jataay bi. seer na ci ñun lool. bu ñu àndee ak teewlu rek te déglu ko nag te yàlla dong tax kenn ku nekk ci ñun di nga ci jële njëriñ looy jëfandikoo yàlla nañ ko yàlla boole defal bismillah shaytaani wasala bil iman شيطاني جيراني يا ربنا ورفعت جيراني وكل معضل عن وخلل يا ربنا ولفعت وشر كل عاسد وآسدا وكيد كل كائد وكائدا والقراءة يا ربنا وموجب شقائنا آه، وثقت بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الأواب أدعوه ببسم الله آية الكرسي ذي المعاني وسورة الإخلاص ذي التمجيد وفاز من مات مع التوحيد يقيني بما رام من المتين متين مجيب يا مجيب يا مجيب تقبل دعاء وجل قريب آمين نسألك بلائي بالمصطفى الشافع كل الخلق ثبت إلهي منطقي بالحق أزكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر بالتسليم آه، وآله وصحبه الغراء والتابعين ثم الأولياء أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن أمنه المولانا آه، وأماتنا الله على دين نبي وعوب شيخنا الإمام طيب يا ربنا يا ملك الكونين قنا إلى شر في الدارين آمين آمين صدقنا

bayt wi mujj ci fa najjinaa ci téere yi azka salaatillahi wa taslimi ala alladi bushira bitaslimi wa alihi wa sahbihi xarraay ngeen ci fekk waaye njuumte la tooy tooy la وآله وصحبه القراء وآله وصحبه القراء لولو تي عبد الله كو نيك دغي تبارك الله تكو خول غرا خمني امول بلاص الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الإنسان وفاطره على صبغة الإيمان والصلاة والسلام على أعظم قدوة وأعلى وسيلة سيدنا ومولانا محمد الذي شهد له الباري جلت قدرته من فوق سبع السماوات بخطاب قسمي يقول له فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وخاطب أمته بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطيعوه تهتدوا صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ورضا الله الخالد عن تاج العارفين وممدهم مولانا الشيخ أحمد التجاني وعن عبده ومريده حجة الله على الأنام مولانا الشيخ الحاج مالك رضا يعم جميع أهل الله في مشارق الأرض ومغاربها بوكي dañ ma sant te mooy tënku ci waxtu ci wax te wax nañu ni waxtu yi nañu fexe ba yemale ko ci vingt minutes ah nee na sëriñ bi yokkoon na ci dix a ah, loolu nekk lu ma bett lu ma jàpp di dina ma dimbali xëy na ci li may def incha allah kon bokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndokkeel ñépp ci gudd yi tedd yi ci jiital ci ndokkeel gi ci suñu jataay bi mu wuutu ci ñim ci war a wuutu ñépp muy Seydi Abou Bakr bu maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz bii toog ak mbollem kilifa yi nga xamanteni bi jotaay bi eum na len mu wuti ci kilifa magam al am li taifati tijaniya مولانا الشيخ ابي بكر محمد المنصور ني نيان yàlla سبحانه وتعالى taala lii ko sëriñ نيانال ليغي يال نكو na نان مو ملني دانيو سانت ني ñu jéem waxtaan tey ci lu ñuy wax njiitul jullit njiitu njiit njiitu jullit nan lañ koy nagte kan moo mat njiit ci diine lislaam wala ñu ni kan moo mat njiit ci diine rekk ndax diine moom lislaam a tax bu dul lislaam diine amul gannaaw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee mu mel ni laaj boobu nag biñ ñu ko laajee ñun ni ñu jéem cee waxtaan dañoo dem seeti jéem a seet fu mu boroom xam-xam bu ci wax waaye ba ñuy gëstu soriwuñu ndax wolof dafay wax ni bokk na ci luy tardeel nit di jëggaani lu mu am loo am ci sa buntu kër di ko jëggaani boroom xel du ko def te ma daan dégg Maxtaar Jóob rakk la ci sama baay ñu bari xam nañ ko xëy na ci fii ci xadro bi mu daan wax ni baayam sama turandoo di jaamu Mawlana Cheikh El Hadj malik daf daan wax ni bu ko bu ma saan bëgg a tudd Mawlana Hadj Malick da daan wax ni ki nga xam ni lu mat a wax wax na lu mat a def def na ko suñu bàyyi seen maam nee na ki nga xam ni lu mat a wax wax na ko lu mat a def def na ko seen baay suñu bàyyi seen maam nee na mu mel ni loolu moo ñu guidé ci ñu dem seeti ci li mu bind ngir jéema walla jéem génne loo xam ni dinañ ko mën a teg ci loxol jaamu yàlla yi ci lii nga xamante ni bi moom la ñu laaj mu mel ni dañu laaj ni ko maam Sidi Haj Malik radiallahu an bu ñu bëggee xam njiital diine koy natte ndax ndax nit ki nga xamante ni bii mooy wut ku mu àndal ci wàllu diine ci mu giide ko kookee muy wut yan meloo la war a làmboo pour kooko di wut diine bu ko taseek moom incha allahu taala mu yóbbu ko ca xadra yàlla ba moo tax loolu la ma ca gis ma am luma ma ca domp ca gis ci téeréem bi nga xamanteni bi man nañoo wax ni bi mu koy talif ci Sénégal gi raxal na ci fiir yu aw gaay wu bare bare bare firu fiir xam ngeen fiir fiir yi ñuy fiir di ko teg ci béréb ngir jàpp janax walla kaña goo xam ni day yàq nga def fiir ngir jàpp ko senegal am na jamono yoo xamante ni bii ci wàllu diine ji loolu yaatu woon na fi maanaam kuy dunde diine waaye dundalu ko maam alaaji Maalik mi radiyallahu anhu def talif bi mu tudde kifayatur raghibin fi ma yahdi ila hadrat rabbil alamin waaw tere bobu ci lañu jële li ñuy bëgg wax ak son honnêteté intellectuelle am solo la amul dara lu muy bind loo xam ni dina ko bind bu du li waxam te waxul fa mu ko jël lu am solo la na moo tax biñ ko laajee laaj bi la mu njëkk a wax dafa indi ay bayit ay baytu yoo xamante ni bii dani mu nettali ca ni am na ay boroom xam-xam lenn nag ci boroom xam-xam yi de wax nañu yi may bëgg a wax muy ay melo yoo xamante ni bii dañu ciy tënke muy melo yi nga xamante ni bii ku bañ a sànku toppal ku yor melo yooya ku wuuteeg yi melo ca boroom xam-xam yooyu boo ko toppee fa mu la jëme dina wuuteeg kër yàlla maam Sidi Hadj Malick nettali ni boroom nee nañu muy baytu yu siiw ñépp mokkal nañ ko ida ida lam yakun li shaykhi fawaidi wa illa fa dajjalun yaqudu ila al jahl بصير بأحكام الشريعة عارف ويبحث في بحر الحقيقة عن أصله يبادر للوراد بالبشر والقراء ويخضع للمسكين في القول والفعل فهذا هو الشيخ المعظم قدره جدير بتمييز الحرام عن الحل بروم خم خمي yi بوكي nañu bokk yi juróomi كو a ngir dem ca yàlla fexeel ba jikko yi walla melo yi ñu yooy bëgg a limal nga fekk ko ci moom boo ko ca fekkul boroom xam-xam bi nee na na nga yëg ni ku lay sànk dong nga topp ku lay sànk dong nga topp ka ca jiitu mooy nee na melo wa ca jiitu koy àndal ngir mu yóbbu la kër yàlla lay jiitu ci moom mooy ku xam sharia la war a doon ku xam sharia la war a doon xam sharia la war a doon mooy ku jàng la war a doon ku jàng sharia ndax kenn mën loo xam loo jàngul lu dul lu la yàlla xamal xëy na waaw am na yeneen i béréb am na yeneen i waaye asbaab yay tax yàlla defal la ko nag foofu la mbir ya nekk ndax yàlla nee na dinaa jàngale waaye mu mel ni dañ ko ni yow koy jàngal yàlla mun la xanaa ki ma ragal ki ma bàyyi xel moom maay muallimam wattaqu llaha wa yuallimukum llah moo tax shakawtu ila wakiin sua xifzi fa arshadani ila tarki almaasi وأعلمني أن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي da ngay jàng kuy wu kuy dem ca yàlla da ngay jàng koy àndal muy dem ca yàlla melo wee ngay njëkk jàng ci moom luñtul ndax ku jàng sharia la wala jàngu ko bu ko jàngul jëmewu la foo xam parce que sharia ay nuzum la ay tëralin la ay organisation la yoo xamante ne bi yàlla ko teg ci loxol sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir jullit ñi gindi gindikoo ci nul n'est censé d'ignorer la loi loolu la gaa wax juriste yi loolu la ñuy wax waaye diine it na nga xam ni kenn mënu koo doxal ci xamoo sharia jullit laa maa ngi doxal sharia te xam te maa ngi dundal diine te xamoo sharia manul nekk c'est impossible nekk <laughs> loolu nu mën a nekk boo ko jullit te doo ko doxal kon bi ci jiitu mooy Abdul Aziz mooy jàng sharia waaye ndax ci jàng sharia ngay yem boroom xam-xam yi nee na jàngal sharia jàng leneen ca wetam لو ني الحقيقه الحقيقه موتخ مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه كهمز يامب لا تركن حبي لداري فنائي فتخسر في الدارين دون مرائي بمو جيخال مينان تفقهنا فسق بدون تصوف فكن سائل التتميم مولانا الشيخ الحاج مالك نينا غناو شريعة جنجل غناو فقه تي موي شريعة تي فقه موي لاي خمال نان غاي جامو سا بروم نان تي تك جانغ ليغا خامتاني بي ديف لي جانغ لي نيو التصوف war ko ci biir lekk ge biir lépp lu nit di def lépp lu nit di def ab du nelaw yi nga xamante ni bii yaa ngi liggéey ba sonn jaganaayoo sa ndeyjoor di nelaw ngir jële ca cawarte goo xamante ni bi boo jógee da ngay demaat ci loo xamante ni bi lu neex yàlla la lu ko gën a nekk ak jaamu biir nelaw yooya boo ca nekkee ñu ngi lay yéegee boo yégee ak boo yëgul ah. jaamu yàlla du këpp-këppal kese lépp looy def loo xamante ni bii wuutewul ak li la yàlla sant rek yaa ngi ci biir jaamu yàlla jaamu yàlla lu yaatu moo tax ba kon loolu ñuy wax tasawuf boogu moo tax boroom xam-xam yi ni ak tasawufu ci ñi koy taarif yi bari na maanaam définition yi nga xamante ni bi boroom xam-xam yi joxe nañ ko ngir leeral lan mooy tasawuf bari na ñu ne at benn ca yooyu nee nañ at tasawufu zubdatu amali labdi bi ahkaami shariati ida xalaa amaluhu min alilali wa xuduudi nafs bokk ci benn ci ci taarifi la bokk am ñu ni at tasawuf man safat sarairuhu wastaqaamat dawahiruhu ala alkitaabi wassunna loolu sharia dañu ni tasawuf li koy jur dëgg mooy da xam nga mooy lan mooy dax dax fu ñu koy jëlee ci foo xam ci soow luy luy tax nga am dax ci foo soow mooy danga koy faat loolu la war a wax di wax faat moom la ñuy def ci wiir di ko faat ngir mën a am dax faat googu nag ñuy def da ñuy def soow ngir mën caa génn dax mooy jëfandik gi nga xam ni moom ngay jëfandikoo ahkaamu sharia ci say jëf li la yàlla sant nga di ci def sa kem kàttan ba loola kenn ku ci nekk nag sa coow na mu mel ak faat ga na nga xamante ni bii noonu nga ko maîtriser dax gu mel noonu ngay am maanaam mu tasawuf yi mën nañoo bari waaye mën nañoo wuute ci kenn ku nekk na nga faatee sam soow nee na nag liggéey la boo xamante ni bii ka ko mën a réussir mooy koo xamante ni bii da koo teg ci lépp loo xamante ni bii sori na ay gàllankoor yoo xamante ni bii gàllankoor yi diine la walla sori na lépp loo xamante ni bii bakkan la tasawuf moomu temps bi lay jël du ñu mën a firi lépp waaye rek ñu xam ni Mawlana Cheikh loolu boroom xam-xam bi wax mooy jàngal sharia waaye jàngal tasawuf moo tax tasawufu tafaqquhuna mawlaaji Maalik nee na suñu jàng fiq yem ca te defuñu tasawuf ci ci ci caay-caay la ñuy jëme moo tax ñu ni man tafaqaha wa lam yatasawaf faqad tafassaq wa man tafa wa man tasawafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaq kooku mooy dundal xaqiqa ki boole sharia ak tasawuf kooku mooy ki nga xamante ni bii moo mën a maîtriser li ñuy wax alxaqiqa te na ngay yëg ni ku boolewul ñaar yooyu yi moo tax ngay dégg ci réew mi ñoo xamante ni bii gane nañ fi di ñëw ñu ngi jógee seeni xam-xam nag ñu ngi ko jëlee charq ñëw fii ci réew mi di weddi mag ñi ñoo ñii ci boppam yaakaar nañ ni nee nañu lu dul sharia rek sa yoon bu mu ci nekk moo tax loo yëkkati ñun la biddaa la moo tax loo yëkkati ñu ni la lan biddaa la te tegwul fenn moo tax ñaari ñaari melo yooyu moo jiitu ci koo xamante ni bii da ngay wut mu ànd ak moom ngir dem ci yàlla na xam sharia na xam tasawuf wala bokk na xam alxaqiqa lu mu ciy teg moom kooko na fekk muy koo xamante ni bi day mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala bokk ni yàlla wax yonent bi ni walaw kunta fazan galida alqalbi lan faddu min xawlik na doon koo xamante ni bi dafay ubbeeku kanamam tàlli ci kanam yu jaami yàlla yi yu baadiru lil wurraadi ñi nga xam ni ñooy wut yàlla bu ñu agsee ci ku mel noonu ki nga xam ni moo leen war a yóbbu ca yàlla day ubbeeku ci seen kanam day nekk ku am ouverture yomb yonent bi yàlla nee na ko bu fekkoon da ngaa nekk ku ñëkk kanam gu ñëkk nga ñagas lool na nga yëg ni ñi la wër duñ la wër ñi la wër duñ la wër kon yubashiru lil wuraadi bil bishri waaw na leen bégal nay bégal gaañ yi ku ñëwee ci moom rek fa tabaarakallaahu booy dem mbégte ngay yóbbu kilifa gu la war a yóbbu ci yàlla noonu lay mel nga teg على الورى غليظا وفظا بل قد فلول جادول ولا تك يا عبد العزيز على الورى غليظا وفظا بل قد فلول جادول وكن لينا سهلا أديبا مداريا حمولا صبورا غير ذا عبد يوغن تنيبنا الديجق سكبك دائما دبال كل لله ذا أحسن العمل كذلك أكرم كل عبد رأيته يوخ أدجف أطفال والقلب غيسر ndigal mooy la gën jëf leen te ngeen bàyyi ay tereem ku def lii wa rabbil xalqi doo gis xadan mbugal di wax xana tumu ni du tew ñuy natal Mawlana Cheikh al El abd al Aziz radiyallahu anhu bu fekkon ni dañuy théorie bu fekkon ni li ay théorie la ñun dund dund ngeen nak ku ko dund ku ko doxal ci seen biir ngeen gis waaw dirub lim fi nek ku ko wan gannaaw wan na la kanam dirub lim fi nek ku ko gan gannaaw wan na la kanam lu fi ñagasoon rataxal na ko door a dem sama baay daan wax ni laata moo dem ku fi caabi féete woon gannaaw sëñ Abdu génne na la ku dof dof lu ba duggaat fi nag xamu foo jëm sëriñ si dañoo doon wurus xam nga ni sëriñ Abdul Aziz du xiiroo du jiiroo sang bi lalu waykat yi way way dañuy tay bay góor way nanu ba tay gis nanu ni way wi wala uh, gis naa ni ñoom seen mbaax ku ko topp di nga dem ba gaañu te doo ko yëg wallahi waaw waaw mu ni gis na ni ñoom seen mbaax ku ko topp di nga dem ba gaañu te doo ko yëg waaw moo tax maam amadou loo waxoon na ko ñoo mën sóorloo neen na ngeen moytu seen maam de yomb na leen lool waaye da ngeen yëg ni ndoxu dex la de dex da ngay naan ba digg rek géej rek ngay buur daal di xam ni weex na xat nga di puuf seen maam la moom ba diig rek te la wax dara wallaahi daf ma wooye fii samaam Habib waaw radiyallahu anhu ma wooye fii bi ma sëriñ dama lay dama lay laaye biir sa baay dex la mu ne ma dex ak géej bu ci gën a raglu ma ne papa géej mu ne ma dafa dafa ragluwul géej du dara nee na dex def ni tekk ca kaw waaye xel ya ca suuf kenn xamu ko ku dul yàlla alhamdulilah kon moo tax ba kon ab sëriñ lañ koy tudd ci ñun dafa doon koo xamante ni bi ku tàllal kanamam lay doon doon it ku tabe nag di teral képp koo xamante ni bi ñëw na ci xadra góor ga meloon na noonu kooku mooy ñeenteel bi maag Pape Makhtar nga baal ma maa ngi lay dog ñu dañuy dañuy waxtaan ak moom suba teel ni ko papa dañu bëgg nga baal ñu xàq yi nga xam ni ñu ngi koy def ci sa kanam mu ne ah li Abdou moom de lu leen neex def ci waaye am na lu abdu yorta te moomu ko dañ ko ko dénk rek lu leen neex def ci waaye li ma moomul nag mënuma cee décider te loolu la boroom xam-xam di wax ni almartabatu la tusabih martaba du bale moo tax yal na yàlla may teggin yal na yàlla may teggin bés bu nekk moo wax ko ni teggin euh, moo tax adab yi wala teggin yu ñu war a defee ci lu nekk même code de la bii nga xamante ni bii moom la ñuy doxal tëralin wu ñu tër wu ñu tëral la lenn lu ci nekk ñu jaaral ko ci yoon ngir éviter képp ko kenn ku mbëkkanteeg sa moroom waaye ñu ni leen code boobu nga xamante ni bii moom la nit sonne ba xam ni mënula ñàkk lu ñu dugg code de la presse code de la route code de nangam code de nangam lu nekk ñu wutal ko code parce que xam nañu ni dafa jàddu moo tax ma ne leen code boobu ñuy gis waa àdduna même ci seen tëralinu àdduna ñu di ko doxal ca muy lu war war a am na ngeen yëg ni ci kër yàlla la ëppee ah. malheureusement code yi nga xamanteni monefi, mo ne fi ak ya nek fofa du ben nga gis mu rouge wala mu vert du deug nga dem wala nga taxaw bo demee kër yalla nak beut ba nga xamanteni bi moy gis code la lay arrêté du beutu bi nga xamanteni bi mom ngay gis ni xam nga lu koy gis ah. beutu xol bu anak ak xorma amul xorma do gis yoyu tablo ko defee bari na koy gis mu accidenté ci kër yàlla nga gis mu sonn lool te mujjul fenn fekk dafa accidenté infirme la buy dem mënatul boppam dara nee na du ko sentir yëgu ko moo tax noonu ni muy feeñee ci biti ci niñ ko xamee ak ni muy feeñee ci biir du benn waaye nag nañu xam ni ni kon amee ci kaw la amee ci suuf ñu respecté bu bàyyi xel waaw la tasmaxu almartabatu qawmi xudu xidrakum ma Abdou baaxe woon loolu nit ñi ni leen bu ngeen ziyaarati bu ngeen bu ngeen dee ziyaarati kilifa yi di kilifa yi booy leen ñuuxu ñun wolof ñun wolof jàpp nañu ni bu ñuy ziyaara fii ak ñooxuwuñu ki ñuy ziyaara rek suñuy ziyaara yeggul moo tax sëñ Hadi radiallahu anhu ñëw na fii ci lu ñu nettali ndax fekke wu mako mu ànd ak mam Abdou ñëw fi di ziyaara maulana Cheikh El hajj mal ñu dara wele mo yor mam abdou rahman wele mam abda ñuy séti mam Abdara ndax caabi ji newu fi bi caabi caabi rawdu bi pour mo na dugg fi ci jàkka ji bo fekk mu tejj ñuy séti mam Abdara waye ñu toxaw ba yag Serigne Hadi Touré ni gor gi même ndax fek ndax fok ngeen ni fab xol ye fab xol mën a yegg caabi man na fa yegg ñu ni dedet mu ni kon nañ taxaw fi te jarul ñuy xaar caabi moo tax ca biti la ziyaara kon mbir mi mbiru xol la du waaw nee na maam rawxaan maam xaaj Bachir di say maam Cheikh Al Hadj Malick daf fi ñëw ñu bëgg ko paase la fi mu daan paase mu ne ki ko ki taxoon ma def ko jógu fi muy yàlla fii rek laa yem waaw waaw tabaarakallah kon mbokk yi bi ci des mooy wa yaxdau lil miskini moo ci mujj mooy juróomeel boobu day am yërmande woyof ci borom mbubb yu gàtt yi miskin boo ko waxee rek ñu yaakaar na waaye borom mbubb mu gàtt Maam Alaaji Malik radiyallahu anhu nee na woon Maam Mansour ah man day sama gannaaw bokku na ci li nga xamanteni bi tit tiit ko te bëgg ñu dindi ma ci moy sama borom bu yu gàtt yi ñi nga xamanteni bi seen bu bu woyef nañ te seen pas-pas deugër ñu dugg ci ci kër gi kon nak bu leen jël kenn ko xamanteni ni dafa rafet wala ay deureumam dafa bari ba ngeen tek leen ci kaw sama borom bu yu gàtt yi moo Mansour bu ma san tejok borom bu bu gatt di nga gis kilifa gu ñew ba pare mu ni na xaar waaw ba pare borom bu bu gatt ba pare waaw am Abdou yónni na ma ma jëlil ko xaalis ci góor gi taala ja ñëw fekk góor gi ci saalu yaafaat ba mu ngi solu toog di ma xaar ma yàkkamti rek jéggi nit mu siggi yam ci man ni dootul Abdou de sëriñ seetal foo ko jëmee mag ñi wax wax mu ne dootul Abdou ma dem ba bàyyi nit ñi ne mu ne bi may wax ak yow gisatuma la yàlla mi bind kooku laa gis boo ma waxee fu mu toll ca yàlla ma jël li ma la yónni mais boo ko xamul xaw ma ko demal ak li ma la yónni ah njàngale yaa ngoog jàngale yaay kon bokk yi loolu moo tax ba maulana Cheikh El malik Malick radiallahu anhu gannaaw bu mu waxee baytu yooyu dafa continuer ci téere ba di leeral di leeralaat loolu ñu wax ci bayt yi muy waxi nettaliwaat waxi beneen borom xam-xam waaye beneen nitu yàlla yéen ngeen xam ko bu baax ñu koy tudde al imam al junayd rëy imam junayd maam alaaji malik nee na bind ko ci kifayatul raghibin bu mu koy bind bari na bari na ñu mu yàq seeni seeni pexe laa yastaxiqu rajulu an yakuna cheykhan xata yaxuda kulle ilmin sharci وأن يتورع عن جميع المحارم وأن يزهد في الدنيا وأن لا يشرع في مداواة غيره إلا بعد فراغه من مداواة نفسه وأن يكون على القدم المحمدي والمريدين على قدم الصلف الصالح وإياك وإياكم متابعة من لم يكن على هذه الأوصاف فإنه من جنود الشيطان الله أكبر mamadaji alaaji Malick nee na kenn yayoowul di wote cëriñ góor gu taxaw ni man serign la nee imam junedi nena ken na kenn yayoowul loolu lu dul koo xam xam-xamu sharia bu mat seuk moy bu jëkk bi xam-xamu sharia dafa bari ay ulum sharia waaye nee na bu ko defee xam-xam ya mu ëmb yépp benn bu ca ne boo ko mën la jeexalit nga sori ca màng ca lu baree baree baree bari teg ca nag doon ku sàmm ci yi nga xam ni moom la yàlla araamal def lu la neex ni loolu dañ ma koo daganalal ci yeneen anam te daganalul woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëfi caaxaan la lu yàlla mayul yonent bi mayu ko kenn bismillah kon nee ñu yemale ko foofu bu ko defee bu subaa daf koy àggale waaw kon fa tabaarakallah kon rek ñu yemale ko foofu ci ndigalul sëriñ bi ba ba ba ëllëg insha allahu taala ñu àggale ko di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla defal ak dégg ak topp يلا يلا فيل مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه دغ دغ دو دو مونيو موم لا نيو جيل ني بو فكاني نيت كو نيك واخنا لو خامتاني بي لو ياتو لا لما واخون ليغي نيت تومون دي تيو نيي نتال داما بوغا واخني بو فكاني لولو بارينا كان كو تي نيك نك وارغا ام سا نموذج man bi may jeexal dama ni won exemple bi nga xamanteni bi mom lay jël mooy moom Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ci njiit lu ko mat te nag waxuma ni dama ko jël nii de waaye incha allahu taala bu subaa dinañ wax jël gi fu mu tegu ak kan mooy ki nga xamante ni moo ko tànn wax ay jikkoom ñu xool jikko yooyu ndax dëppoo na ak yi ñu wax wala déet. جزاك الله خيرا آه، بكي ينيب سيدي بكر مولا عبد العزيز ني نيغي نيو كليفا في توب ييب بروم كير غاغي ني دوم سي سونو واجور وي ني بروم كير غاغي ني دي دوم سي سونو واجور وي دي الحاج مباي ساخو الحاج حبيب ساخو mi ngi ànd ak doomu góor gi alxaaji ibrahima saaxo mi ngi ànd ak ibrahima saaxo ak kilifa yi fi toog yépp ak abdul aziz si bu sunu mag sidi ahmed si mi ngi nii toog moom itam moom mépp ñoom daal ak ñi fi toog ñépp ñu ngi leen di nuyu ci seen tuturu sëriñ babacar Euh, monsieur le maire Cheikh Gueye bu Derklé ca Dakar moom it ñëw na Chérif Tourate it mi ngi nii toog Seydou Bakar ne ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ci turu Seydou Bakar Khalifa di nuyu daal ñi fi toog ñëpp bàyyiwuñu kenn bu subaa mu ñëw rek moom mu incha allah papa Yusufa Jóob àggale ko ba ñu xam ci dundu lislaam kiy dund lislaam ak ki nga xam ni dundul lislaam nee te moom mii kat bu ñu ko dégloo ci xam-xam bañ koo dégloo ci moom mii rek mooy wax alladina yastamiuna alqawla la ca gën a rafet surtout nag loo xam ne dañ ne la qaala allahu qaala war naa doy ku ne ku ci am ak laaj bind ko boo ko indee tontu nag la nga laaj ci saa si waaye danaal danañu fexe ba bind ko jox la ay téere yoo mën a dellu ba am lu dal sa xel li koy waral benn bis ne dafa am rek benn bis. ci Liberté 5. ci Liberté benn waay bu ñëw. benn waay bu ñëw. fii la fekkoon ñoom Baye Lamine. fii la fekkoon ñoom Baye Lamine. mu wàcc soxnaam. mu wàcc soxnaam. jàpp ni wàcc jàpp nag ni wàcc ko. ñu nettali ko ba pare. ñu nettali ko ba pare. nanguwul daal mu jóg dem. moom mu daal jóg dem. yàlla tombele ma ak moom nag ca. ca Liberté cinq fekk góor gaa nga fa papa Amadou ba Baye Alaaji Kebe Pape Tidiane Pape Cheikh Ndiaye góor gi di ndékki waaye ji dal di poser question ba ñu ni teg ñu daal di dem ba ci yàgg ma ni papa ma ni déet sëñ Babacar demal nga indi téere dama ñoo nekk ci jamono boo xam ne bi doo waxe sa xalaat góor gi indi ñeenti téere jox benn baay alaaji Pap Tijaan kenn ku ne daal ñu jox la benn téere ñu ni ko Pap alaaji ubbil buntu sàngam waa ji waxal li nga wax ñu ne waa ji waa ji lu mu wax Pap alaaji ba téere yi daj mu ni ko loolu ñu la wax nag du ñun ñoo la ko xañ dégg nga ñi nga xam ne kii nga Maroc kii nga Algérie ñii nga xam ni kenn ku ci ne bokk ak sa borom fa nga dëkk ñii nga Maroc ñii nga Algérie ñii nga feneen yow nag yaay xam nag ñooñee ñëpp kala ci doy nag nga téye ko waaye daal xañ nañ la jabar ñooñu xañ nañ la jabar ñooñu ñoom xañ nañ la jabar ah, nee na bu subaa bu subaa bu ñëwee incha allah dana ko motti la mu ne masala jàll sant mu ne nga teg ci sëbat surtout jamono bii ñu toll te te te mbokk yi maa ngi leen di yëgal kutubul xaw mi lépp léegi gaañaa ngi koy nëbb lépp gaañaa ngi koy nëbb maa ngi yónnee ba Égypte maanaam téere yi mag ñi lay wax ni gaañaa ngi koy nëbb léegi ñu ne raar na léegi nga di dugg ci maktab yi fekk waaw bi leen jox ay joxoñ ñuy dem ci yenn téere yoo xam ni dañ ko jëlee ci bukhari yoy sax amna ñu koy traduire muslim ak ak sahihayn ak wala kutubu tasawuf kutubu ash sharia yi ci gëna wér ñom tam ñu leen ci jox ay joxoñ ñu ci gëstu lu am solo la loolu yëpp war dugg ci daara ji parce que amna ci ay amna ci ay arabophone amna ay francophone waaw waaw yoy yëp tam dañ ko bàyyi xel. yoy yëp dañ ko dañ ci taxaw rek. ne yooyu yëpp incha allah dinañ ci taxaw. ni ko sëriñ bi bëggee ñu doxale ko noonu. ni ko sëriñ bi bëggee ñu doxale ko noonu. ku ci yàlla te ci alquran doo dem fenn. maanaam waxtaane ko mooy nee na mooy jàmm. dama ko fàtte ci njalbeen loolu la waxoon njëkk la wax ci jàmm jàmm yoo xamante ni bii ren bañ nañ ko ba mooy temu gàmmu gi jàmm mooy temu gàmmu gi loolu ñépp bàyyi ko xel ci seeni jëflante nee na ñépp a ngi wax jàmm waaye kenn jëfewu ko jàggo déggoon naa nag bis ci sama baay mu ni maam Yuusufa Jóob dafa daan wax ni jàmmkat ab jàll la jàmm ab jal la boo xam ni yàllaa ko fi teg mu nekk nee ñu jàkkaarloog moom jal xam nga jal lu dara jal la waaye nee na jal booba lu lu lu lu mu neex neex lu ko ñépp bëgg-bëgg ku jàmmoowul bokkoo ci yàlla na yàlla may ak jàmmoo moo ñuy mën a tax a mën a tibb ca jal booba kon ba suba rek incha allahu taala ñu yeggale ko awaaw bismillah nee na ñu jàng fatiha ak salaatul fatih nee na yal na yàlla may ñu yeew ak jàmm teguwaat nag ci sharia nee na sharia nag mi ngi bëgg a tumuranke ci Sénégal nee na dafay déglu benn bis ñu ni sëy yi nga xam ni ci jàkka yi lañ koy takke mënatu la wér kenn nettaliw ma ko mm. heure baag ki ko doon wax yépp ngi maa koy nee na ko ko doon wax ak heure baag yep mi ngi ci bop mi ngi ci boppam mom mi ngi koy fàttaliku ñu ni sey yi ñuy fas ci jakkay yi wératul ak fasé jakkay wërul nee na fase jàkke it nee nañu wérul maire ngay dem wala tribunal tribunal la ñuy fasé wala maire mu door a wéy tabarakallah nee ñu jang ñaan fatiha salatul fatih ñi ngi ñaan wax leen amin فاتحة صلاة فاتحة اللهم آمين اللهم آمين يا رب آمين اللهم آمين dama dégg maa ngi ñu ngi ñaan dama dégg benn waay di wax bay tëj ci benn télé ni téere yi nee na téere yu mag yi xew yi nañu àndul ak jamono ma seet seet ban numéro laa koy wooye mënuma ko woo ma bëggoon ko wax moom ñaata at la am te wóor na ma ni passé na 70 ans pourquoi mu bëgg a dem ci télé bi wax leneen ma ne ko yow yaa war a njëkk bëgg a déplacer yow yaa war a gën a njëkk a dégager sa bopp avant ngay dégager benn livre loolu laa ko bëggoon wax mais aw ma aw ma aw ma maa ngi koy maa ngi koy wut nag waa ji moo gisee dinaa ko wax moom. amin ya rabbal alamin خدينا ينال رداء عن كل عبد موحد على قدمي ذنبنا وانتمني جرى يرنا تمحى بجاه محمد إذا ضمي ما بو مجاز المبارك